ay rakam ndékkiwul moom la nu yaakaar muy ponkalum jëmm war a yor famille yàlla dogal amu ci dara ndey di jooy baay di jooy ku ko attan gaal ga ñu dugg di uuti dañuy uuti xaru wunu xanaa kon ku jëm gàmmu Tiwaawan baa nga jëm màggalu Tuubaa baa nga jëm dakaar baa nga jëm feneen xanaa kon ñi dee ci yoon yi dañoo xaru xaru yii ni la innamal a'maalu binniyaat yonent bi am yii ni la man maa jóg rek am lu ma naqari takk buum ci sama loxo ñëw ci euh, saalu bugaan bi langaamiitu ba dee wala man naan fi ay doom dee wala ma jam sama paaka sama bopp dee loolu maako ci jublu waaye maa ngi uuti yàlla dogal nga lab ci yoon ni kooku xaruwul ne ñu ut solution wax ji doy na